mbégte ak kontaante bu baax a baax pour ñuy suivre ah ci ETDR Média di leen euh, toppal lépp lu nga xam te bi rek mooy làmb comme ni ñu koy waxee boobu ba léegi rek di leen toppal avant pendant après ku ne xam na ne génn nañ ci le 14 janvier doxoon ci diggante Fils de ak Lac Rose waaye jariñu caatu yoof dégg nga ñàkk jariñu ginnaaw bi mu bëree kàddu yi wax waaye dégg nga Fils de Balla ginnaaw tamit kàddu yi nga xam te wax na ko Caatu Yoff tamit la même chose tey ñu ngi fi xam ne mooy euh, kër nga xam te euh, dem ci euh, Fils de Balla diggante ak Fils de Balla waaye ñu ngi nuyu gars yi nga xam tamit ñu ngi toog dañuy topp ci li nga xam te mooy ci TDR Média ku ci mel ne Ndama ak ki nga xam ne mooy Mori ak gars yi nga xam te ñu ah. mais maa ngi gën ak Oumanga mur ba yàqu la nag leen nuyu di la siyaar waaw mais Thier ñu ngi lay fay di nuyu Sénégal gi yëpp ah. ah di contane ci yeen ah demb lamb ji ni mu taaroog bis bi nu mel yep yalla ak yeen ah kon ñu ngi leen sant di leen gëreem mais fumay may rek moy tay uma nga sa digënt ak Fils bala est-ce que mën nga ma ci ñëwal. <laughs> sama digënt ak Fils bala wa mën na la ci ñamal tout rek waaw sama rak la sama xarit la ñu yag wa parce que yaakaar naa and bi may and ak mom jaaxalul waa way quoi wa mën na am ku fi dekkul lay jaaxal wa mais sama lepp la yalla ñu boole daal ñuy and waaw ah, te yàlla rek tax te yàlla bu yàlla dakkal ànd gi daal waaw ah, parce que fi mu toll ni moom xas na ba rafet te dañuy ñaan yàlla mu gën a rafet waaw. Ah. ñu gis combat am depuis euh, ci carrière am ba léegi yaa ngi ànd ak moom di ko taxaw su amee combat day mel que yow yaa am combat nga ciy def loolu ak loolu pour mu am ndam lan la. waaw mais moo ma moo ma jox cër boobu rek bu ma ko joxul woon du ko am ci man man kenn moomu mhm. barki alxuraan kenn moomu waaw ah, nit ki dang may jox lima ma rek ma delo lako ko mhm. ah, daf jox lima ma rek moo may waslu ak di sonu ci mom mhm. mais buma ma joxuloon li ma moom kenn gis ci wetam buñu rombe mom mën nañ bëggante nuyonte ku ne dem mhm. parce que xamanté gi mom du dañ xasna ba am waaw ah, lolu kessa la du dara de uh-huh. gën ngeen dem ci combat bu amon solo sen carrière muy sen digënté ak uh, Lac Rose combat bi ngeen ko jëlé nak ngeen ko préparer ba tolu tay fi wa combat bi nak mom wax deug yalla ñi wax ci biti mom dañu xamut bàyyi ku dee ak sa bàmmeel billaahi wallaahi wa taala fi sa baala li mu daj ci combat bi mosu koo daj ci combat hmm. man samay activité yëpp laa daggoon maa ko doon assister entraînement ngoon gi maa ko doon assister entraînement suba gi kon ñii taxaw naan fi sa baala dafa desee contact wala dafa desee nii dañoo xamut nit ki mënoo nekk ak moom ba pare nekkook moom ba pare di ko gisé loo xamut nit ki balaa nga koo gisé day fekk nga nekk ak moom hmm. man man ñëpp a ma xam man kenn xamewuma ay fen hmm. Fils de Balla bu entraîné wul man maay njëkk taxaw ne ko entraîné woo mais bi ma dalee ànd ak moom ba léegi li mu liggéey ci combat bi mosu koo liggéey ci laay fam barki alxuraanu karim ku dee ak sa bàmmeel. léegi lu bi la wala carrière bi la. waaw mais parce que combat bi moo toll noonu. waaw parce que combat bi moo toll noonu parce que fii tamit ku ne xam na ne bëreeg waa Fass neexul de. waaw waa Fass bu mànkoo rek ñëw taxaw. Mhm. waaye Fils de Balla la. déggoo Fils de Balla la. barki alquranu karim comme ni nga ko waxee nit day gisee doom adam mais tay mom tay ñu bëre démb lañ ko xaw a sànni xeer ci ka tay mom moy xalé mom mo soxla ñu gis ni bëre la gros dem ba maxi nii la mom ndax loolu tamit euh, luñu gën xaar ci mom la wala non ñen ñi xaaru ko won ci mom mais ñun ñu xam fi de Balla bu machine nii lee tamit démb lamb ji duñu bett quoi hmm. parce que fi de Balla dafa bëre ay blessure fi de Balla bëree na ñaari blessure ci lamb ji combat bi billahi boko waxe nak mën nañ da ngay saltel ñaari blessure beure nako ci combat bi mais mbeur tay su beure bu daanu bu amul ndam rek ñu ne blessure ñu génné blessure non mais ñun doxuñu ci yoyu ñun doxuñu ci yoyu kanji nit ku baax la du taxawal bisam ba heure bi ñuy saltel wala diko yaq fi sa bal amna blessure bu gëna metti ci mom bo xamne rek buñ bañu doon yaq bis bi rek du dem muy kiñ doon andal guddek beccëk di préparer combat bi abib ba signature ñoo and yàlla suñ borom dogal mu jël ko ko ko waxoon di nga fekkee combat bi wala doo ko fekkee du ko gëm nañu waxante dëgg rek kon loolu rek dafa doyoon blessure pour toog yàqoon làmb ji nit kuy sonn ci yow guddeeg bëccëg làmb ji des ñetti fan mu gaañu waaw kon ñun xam nga bëggoon a bis bi moo waral li yëpp mais fi sa la bu niilee man du ma jaaxal du ma bett non du ma bett parce que li mu bëree moo bari imaginer nit ki la jege subaak ngoon guddeeg bëccëg nga tok ñaari fan ñoo la genn aduna loolu rek de jouer sa bop keroog mu ngi taxaw di fomp photo bi pour préparer dimanche. ah kon yeen gis ngeen lepp koku yan won combat bi sonu ci don ci daj lu nek yal nako suñu borom yërëm te xaare ko aljana ak suñu rakk ñun ñëpp baax mo da keroog robam bi macha allah fees dell la def ah yalla suñu borom yàlla nako yalla yàlla te xaare ko aljana léegi fi may ñëw mooy tey dem bi ngeen dugg ci lamb ji heure bi ngeen dugg ci bir lamb ji ben guddee na deuxièmement yàgg ngeen ci porte bi cioli bari won fofu ci porte bi lan la won wa yag ci port bi yëpp du daanul homme de tenir wa waaw homme de tenue dong ñoo ñu yàggaloo ci port bi parce que ñom dañoo wara xamne ñom ñoo yor karange askan wi waru ñoo door askan waru ñoo gañ askan wi nañu waxante deug rek mais mbeur mu taxaw di bëri nga koy ngad ay sen barrage yoyu diko door ay missile fan lañ ko tek mais nak est-ce que tek ngeen ci euh, règlement bu jaar yoon ba tax ken luñ baña baña baña tegu ci règlement ñom ñoo war am tolérance di tolloore nit ñi xamne mbeur mu ñëw di beuri ji xadar ba mi andal ak tangor bi ñom noo mën a ñëwee ñoom ñoo la war a maîtriser teg la ci code ba nga dem ak si jàmm ak salaam mais defuñu ko si diggante boobu ñuy compter lan lañ lan moo lan moo fa jar ay dóor lan lañ ñuy dóor. Ah, est-ce que ëppale la. non ñu non non ëppaluñu. Hmm. ëppaluñu. werante bi yëpp benn nit la woon. waaw benn ah, mu muy yan bu diis te ku xam yan bu diis xam kook fi sabaa la nañ waxante dëgg rek hmm. mais benn nit jarul ñuy dund ak ñun loolu quoi. Hmm. waaw ah, fii Sénégal la te dafa xat ñun ñëpp ay mbokk lañ ñoom suñu kër yi lañ dëkk ñoom bu ñu solul tënk bi ñu ne ñoom ñooy ànd ñun bañuñu leen ñun ñoom lañ gën a respecté parce que ñoo yor suñu kaaraange kon lépp lu mën a demee nañ koy rafetal nañu xoolaat seen taxawaay mm-hmm. làmb affaire de xale la rek day jeex taabu ndaw la day jeex ñu dem xooli ji leneen waaw. su ma jógee ñu wàcc ci biir géew bi démb avant ngeen di bëri coow li ngeen créé foofu ci wetu di bàkkoo lan la. waaw mais dama gis sax ay béjjén ay bëgg a bëgg a jamanteeg genre yooyu. waaw loolu du dara loolu yëpp harmonie làmb la rek. làmb moo baaxoo noonu làmb képp ku ci bañ coow bu fa dem bu si dugg. nañ waxante dëgg. mais ñun ñoo nekkul ku ñuy linjaa. ñun mbindeef duñu ah, linjaa. waaw ñoom dañoo bëggoon néewal booy bi doole ñoom ñaari mbër li ñu def teguñu ko fenn. Serigne Ndiaye ak général bu Faas. waaw li ñu def teguñu ko fenn. que tamit nekku yéen li ngeen bàyyi seen lang ñoo ba ci langam moo tax ñoom ñu réagir. du ñun Fils de Balla ak benn nit la Fils de droit taxaw di wax ak Lac Rose parce que ñoom ñaar ñoo war kon ñoom ñooñu Fils de Balla lekkul seen avance amuñu droit jéggi barrière di ñëw ci ñoom yàllaa ci def ndoom sedd mais bu ma àndoon ak Fils de Balla ci diir bu gàtt boobu leneen la ñuy wax ah, mais duñu wax la dego ñun kenn duñu linjaa hmm. barki alxuraan ñun Fils de Balla balaa mbindeef di jaar ci moom dina jaar sama bakkan bi man um bu yàlla dogalee ñu ànd hmm ah parce que momako jaral momako jaral momako ji ko ko ji. Serigne Ndiaye mo togn mais Serigne Ndiaye nak mais mais mais nga xam nga Ouzin nga ami dafa bëri Serigne Ndiaye de arène Serigne Ndiaye da koy daan mais est-ce que tamit nekk ngeen top bo léegi moo tax ngeen ci bo demee nga boko boko boo mom sama xarit la. jam ak salam lañu ñu sekk depuis biñ bëree ba léegi. barki alcorane karim. pare saa ñi waxtaan message TikTok. mës nañu waxtaan téléphone man ak moom kon kooku jàppalu ma ko dara moom it amaana jàppalu ma dara mais su ma rakk du ma ànd ak moom gis kenn di ko attaqué di dal ci kawam may seetaan du ma ko def ak lépp lu mënoon xew démb foofu amul lu ma ciy réccu barki alxuraan daw ma ci dara ak lu fa mënoon a xew daw ma ci dara booy bi amul mbindeef bu naan ko nii man um te ma jege fa amul am na solo léegi tey làmb ji jeex na ci match nii la léegi ëllëg Fils de Balla fan la naka lay war a mën a taxawaat waaw Fils de Balla ëllëgam dara delluwaat ci ay entraînement am rek hmm. te xam ne moom ji ñi muy bëreel ñëpp leen féete ndaw ñëpp ko mag yow xam nga Fils de bu baax hmm. ñi mu jot a ñoo mag Fils de hmm. kon na dem continuer waat dolliwaat ay entraînement am ñëw waajaat ak ay dem lim la. prochain adversaire kan la. ñun di bandi bandi. waaw du du leen jël. duñ ko leen duñ ko bàyyi Franc Franc nenañ xalé xale la Fils ba la xalé la nañ len bolé Franc dugu bir géej way am yu fi def dan fi ay champion yu gëna a supérieur Fils ba la ngeen bëgg top bu ngeen bëre match nit ba ko jël. bu jëlee Fils ba la ci lay noppite dugu géej way li nga bëre dem est-ce mëna yëngal Franc. <laughs> ñun suñu qualité du jeex de. ñun mëne nañ lu ne. Euh, mais yene ak lan la parce que tamit affaire yi mi nga bëgg a yàgg de. mais dañu xamné ñaari ndaw yu tollu seen digg ndënd lañ war nañ leen mëna a boole moo gën Fran nekk fi di teg di tànn adversaire naan day bëre ñu warta bëreel Fran ñi la war a bëreel Franc ñii ñoo ko njëkk a toj arène kon ñi la war a bëreel si ni boo amoon ndam ci lay gën a neexee waaw mais eh? mais bu yàlla bañee nag est-ce que doo xool wàll leneen te du ma xooli leneen bu yàlla rek Fran baax na Moussa Ndoye bu ko neexee mu ñëw waaw ah. Moussa Ndoye bu ko neexee mu ñëw ama bu ko neexee mu ñëw waaw Koyens bu ko neexee mu ñëw

ñoo ñooñu moom ku seen avance woon tey ñu fanaanoo ko waaw. kontaan naa ci tàggatoo. waaw mais di sant waa Géejawaay yëpp ñu seen fay gis nañ ni ñu taxawoo fi sa baala man fi sa baala sama baat ci kaw ku ko bëgg ma bëgg la ku ko bëggul ma la man noonu laay dundee suma laayef man su ma xasee ba ba ne ñàpp nee naa ñàpp mindeef munu ci dara waaw yaakaar naa ñi ma dëkkal ñëpp xam nañ loolu ci man waaw di sant boroom sareet yi bu baax a baax a baax waaw gis naa ni man lépp lu ma nekk rek fekk nañ ma ci ba mu jeex tàkk kon aw ma seen fay. waaw yàlla na leen yàlla jàppale gën leen a suturaal gën leen a dooleel daal may leen lépp lu ñuy wër seen àdduna man moom damaa tibboo borom sareet yi man ñëpp a ko xam ci man waaw man dawalkatu sareet laa mënu am leen sut waaw man ñoom laay tiitaroo ñoom laay ndamoo ñoom laay sagoo kon lépp lu ma nekk dañ ma ciy fekk kon maa ngi leen sant leen gërëm yaakaar naa ne keroog open presse bi ku gis borom sareet nga xam ne borom sareet yi mat nañ lu ñu doon waaw di sant waa Géejawaay yëpp mafia dëru bi aba son na ci fils Aba la waaw day bàyyi liggéeyam bàyyi atelier fële waaw di dox ci ay waaw fii sa bala mhm. loolu nit ku baax doon ko mën kon yàlla na ko yàlla jàppale te suturaal ko moom it waaw te gën koo dooleel Lat Diop nag Lat Diop waaw mention spéciale Lat Diop monsieur le ministre ñun amuñu ku dul yow mhm. ragal féete day xañe wërsëg man maa man maa la ko ñaan man um mhm. président gën a la jàppale fils de Balla te yàlla rek tax man waxuma sama bopp man sama bopp dama ko jëlale mais na ma dimbalil fii sa baala te yàlla tax bépp jàppale bu mu ko doon defal benn nag ko doolil fukk te yàlla rek tax te mu xam ne ñun moom lañ tibboo moom lañ am dawuñu ci dara lépp lu mu soxla soo ngoon ñu ngi ci kon nag bu ma jàppalee fiis sa baala rek alhamdulilah billaahi. kon lépp ñu teg ko ci loxo Omar Mbaye ah. waaw Omar Mbaye suma xarit suma doomu ndey waaw moom it yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw nit ku baax waaw nit ku am taalibe tamit lu ne laa koy wax te da koy muñ waaw kon nit ku baax la. waaw am leen jàmm di nuyu waa waay yëpp di woowaat ñëpp ne leen Fils de Balla seen doom la nañ ñëw jàppale ko te yàlla tax parce que gën a jege gën a yey rawatina waa corniche bii gën a jege gën a yey nañ ñëw jàppale Fils de Balla champion la barki alxuraanu karim képp ku ko yéenewul lu bon lu baax it wallaahi lu baax lay am man xam naa fi ma ko teg ne lu baax lay am waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ku sonn si combat bi mm-hmm. sant nañ la gërëm nañ la wasalaam acca mbégte ak kontaan ci képp ku ñu doon suivre ñu may euh, wala boog doon ñu bàyyi xel ci ETDR Média tey fii ñëwoon fii Guédiawaay jël ki nga xam mooy Omanga ku comme ni ma ko waxee rek xelal sa xel dem ci kii Fils de Balla muy ñoom ñaar ànd bu nga xamante ne bi ànd bu yàgg te ànd bu yàgg tamit dëgg la dégg nga kàddu yi nga xamante ne wax na ko ci digganteem ak Fils de Balla ak ni ñu préparé combat bi ak ni combat bi jeexee waaye na tamit ci après combat wu Fils de Balla Quench wala boog combat Fils de Balla ak Lac Rose fan la Fils de Balla jëm yëpp gis ngeen ko comme ni mu ko waxee di wax jàmm ak xewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal la grand technicien wala boog la grand cadreur Ousin tey mooy cadré mi ngi noonu moom laa ci àndaloon di wax jàmm ak xewal na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal jërëjëf waaye maa ngi bëgg waat bu baax baax a baax rek képp ku ñuy topp rek ci ETDR Média di la leen wax jàmm ak ba beneen yoon acca Ismaïla ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu yëngu ci walu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lepp lu jëm ci walum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ci taxaw ba mu yem établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ la jox kaya amee amna gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moy liko dalé ci fondation élevé tabax xuule ak raax ci second œuvre bi nak ci ngeen di fekk électricité ak plomberie ETDR amna ñu ay boutique

établissement Touba Darou Rahman ñi ngi cité Fadia villa numéro 250 wala ngeen 77 575 50 25 33 824 57 43 am un mail itamit bo xamanteni ni mën ngeen fa jaar ets touba darou rahman mën nañu la defaral itamit boole la ak suñu ay ouvrier prestation de service bu muccu ayib ngay am fofu. mobilier de bureau de dernière génération amna ci ETDR location de voiture maanaam ETDR moom bàyyiwul dara moomeelu réew mi la établissement Touba Darou Rahman yéen doomi réew yéen la